fukki rakaa ak ñaar lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon inna anzalnaahu ñaari yoon qul huwa allahu ahad ñaari yoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi